Baraba Mam Baraba Cheikh Madi Lamine Mbacké yaa jarawoona Mam Baraba Mam Baraba Cheikh Madi Lamine Mbacké yaa jarawoona Yéen ñëw moom ñëwee ñu ko di liggéeyal sëriñ bi liggéey bi liggéey sëriñ bi itam maanaam kenn du liggéey sax loo gis waaye wax dëgg yàlla sunu xol sedd na ci guy ndax am nañu ndam amati nañu ndam amati nañu ndam ndax jàmbaar ngeen sëriñ bi liñ la bëgg a seeral mooy jigéen ñii ñu àndal ci daayira bi jàmbaar lañu lool na nga leen doole ñaanal ban yokku ba seenu njaboot yor leen ñoo ngi lay sàkku tam ci yow nga ñaanal nu gune yi nga xam si ni ñooy seeti sëriñ Abdou Khadir Gueye ak Cheikh Ahmed Diarra nga ñaanal leen ndax li ma la mën a xamal mooy gune yi mag ñi mënuñu leen am na nañu jom am na nañu pësteef am nañu bëgg gu nu bëgg sëriñ bi ba yëmalewuñu sëriñ beeg dara démb bëkk démb ne réunion ñoom fa lañ leen bàyyi ñu continuer di réunion te tey jii bi dajalee seen bagage ñu dajalee suñu bagage wax dëgg yàlla xool seet na ca guy kon loolu yal na yàgg ci yàlla doole leen ba li ngeen bëgg liggéey lépp ngeen mën ko liggéey barkeb Serigne Touba muy sëñ Moussa Diop mi jiite ko ak am sa ak soxna euh, Mbène Fall mele jàmbaar lañu lool ak ñun ko àndal ñëpp nag béyuñ ba ci tuut tànk yi raam sax béyuñ leen kon sëriñ bi loolu den la ko diis nga ñaan leen li ci dolli mooy ñii nga xam si ni ñoo di aw mag ñu ànd te ànd ak sëñ Cheikh mii àndin wu rafet wax dëgg yàlla ñoo ngi sant sëñ Cheikh sëñ bi sëñ Cheikh tey yokkatut tey lu mu yor attan na ko def ci daayira bi lim ciy def sax ñun ñi defuñu ko kon sëñ Cheikh jërëjëf waaye yëf moom jëf jël la rek sëñ Abdou Guèye daan wax naa ndug ndëndu maam Cheikh Rafal ba jëf jël la daan tëgg lu waay jëf rek yaa koy moom kon yàlla na yàlla sëriñ Tuubaa doole dimbali ca yàggal ñu ca wéral ñu te dooleel ñu ba nu bi ni ko bëggee sëriñ bi yow ñu ngi lay ñaanal ñaan koo xam si am na fu mu tàmbalee waaye amu fu mu yem nga ànd kook sa rakk yii ndax wax dëgg yàlla bi fi sëriñ bi jógee ak léegi saa soo wootee bis boobee ku fi ñëw di nga xam si ni danga naan lii nu mën a demee nii sax te bi fi sëñ Abdou Xaadir di ne ko noonu lii ginnaaw sëñ Abdou maanaam lu mel ni doot fi am waxees na ko fii ba tàyyi màggal gi tas na sax àggees na ci waaye defe naa ni booba dañ doon doog a tàmbali màggal gi defe naa tësut wala tasul parce que sëñ Baara Mbàkke tasul te di nga fi yàgg yàgg say rak loo bëgg a def di nga ko def loo bëgg def di nga ko def loolu laa noonu dinaa leen ko jottali li ci def sëñ Cheikh dina ko yeggale ndax moo yoroon wàllug liggéey bi dina leen ko faram fàcceel lépp ba mu yegg buñ ca jógee Moussa Diom ñoom ñi kenn ku nekk sànni ca la nga ci sànni wasalaam hasbunallah wa nihmal wakil la hawla wala quwwata illa billahi halil azim bi hurmatil basmalatil mubaraka yaa man lahu xalq bila musaaraka salli wa sallim xalal muxtaari fil kurama bu basirana bi nasmi afdal rusuli barke borom Touba barke borom Touba barke Cheikh Amadou Lamine barke Cheikh Amadou Lamine mbokk yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di yiital ci nuyoo bi saahibul fadila Serigne Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér waaye noonu la ñuy ñaanale sunu jàmbaar sunu jëwriñ sunu sëriñ Cheikh Mouhamadoul Moustapha jëwriñu Cheikh Mouhamadoul Lamine di ko ñaanal sa borom guddal fanam te wéral ay cëram waaye noonu la ñuy ñaanale sang bii toog di sëriñ Xaadim Guèye di njabootu jiitu ci njabootu sëriñ Abdou Xaadir Guèye ñu ngi koy ñaanal ci kattanu yàlla ak mbaaxam barke bi alxuraan yàlla yàggal ko fi lool ba mu sut ay maamam ay fan te mu naan lépp mu def ko ni mu ko bëgg tànn ko ñun yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na ko def ci barke sëriñ Tuubaa bu loolu jàllee ñu ngi nuyu am Amdi Diop mi nga xam ne mi ngi toog ak ñun ñu koy xoolee sëriñ Abdou Xaadir Guèye mu mat ko sëkk mate ko sëkk ñu ngi koy ñaanal moom it yàlla wét mu wét li ñu te yàgg ak ñun ndax lu baax rek lay lañ xam ci moom te kum ci wéetalit lu baax rek la lay wax kon ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax di nuyu tamit sëriñ Abdoul Aziz Guèye mi fi jógee sëriñ Basirou Guèye sëriñ Abdoul Karim sëriñ Ibrahima sëriñ Cilla bàyyiwuñ kenn mbooleem jabatug sëriñ Abdou Xaadir Guèye gi wala mbooleem jabatug sëriñ Mat Jaare géey gi muy taalibe muy doom muy sët muy jarbaat muy seex muy fu mën a doon ak noo ci bokke rek ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di la ñaanal jàmm di ñaan ngeen yàgg a ñëw ci mu mel ni tey nag yoon wi xaw naa metti lool mm-hmm. waaye toujours dama leen di wax ne leen lu baax de yombut mm-hmm. ndax maam Serigne Fall day wax ne jëf bala nga cee jëriñoo di nga wetti ñàkk wetti waatu ñàkk mm-hmm. ndax bu ñu xalaatee rek ba sëñ Mat Jaara Gay di ñëw fii kon yoon wi mën naa oyof ci ñun toy te ku ne xam na ne tey àllarba la te ku ne xam na ne àllarba bisu boppam la waaye lii bañ ne tër mu am man bettu ma ndax xamoon naa ne cat foog mu génn waaye ndokk ba mu amee waaye bañ ak si am na koo xam ne ba ma la ma waxoon mooy faaw rek alarba ji jeex ñu soora duggu xawlu hmm. kon yaakaar naa loolu am na waaye loolu lépp sant yàlla la nañ ci bàyyi xel bu baax a baax hmm. te ñuy wàññi njàmbat li tey sant bu baax hmm. ndax jamono yi ni jàmbat oto bu paan am na ñu ne siiwa jóg la hôpital kon loolu lépp du dara ak cant la rek nañ koy nañ koy delloo yàlla ndax yàlla loolu rek la jago muy ko te di ñaan kon bu loolu jàllee ñu sëñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ci mbooleem daayira tey siirul xasir mi nga xam ci ndigalul sëriñ Abdou Khadir Gueye la soso woon waaye daayira wat ci digënté bi wat mu melni kon doomi daayira bi la muy khidmatul khadim mm-hmm. sëriñ Moussa diom nek ci bop bi mm-hmm. bi ñi di ay jambar mm-hmm. di ay gor di ay ñu am pësteef ci liggéey bi te bëgg ko lool te man mi nga xamne ne ne man lañ jël ne nemaa na ci bop bi tama tama tama tuuti ci lool ma ngi giñ ci sëñ touba ñoo man xañ na ñoom dañoo bax rek waye li ñi def sax man defuma ndax jëf xaaliss du dara ndax xaaliss mo toujours damay wax ne ku xey ku ne yàlla dina la ci jox mm-hmm. ah, bu la joxee nag jëfloo la santal mm-hmm. waaye bu la joxee jëfloo la tamit santal xam ne loolu la yàlla séddee mm-hmm. waaye li gën a doy waar mooy wax ju baax ak luy jëme mbir kanam loolu pour man loolu mooy mooy alal ndax ndax tey mbooloo mi bu fekkente ne Moussa jóob dafa jóg ne nii la ñuy def pour liy dox am sa ne lii la ñuy def pour liy dox yëmmu géy ne lii la ñuy def pour liy dox mbenn géy ne lii la ñuy def pour liy dox keneen ak keneen wax ko saraax wax ko keneen ak wax ko loole ñu dajale ko ba mu nekk wenn say ñu indil la ko géey mm-hmm. loolu yaakaar naa moo dàq lépp mm-hmm. tey buñ toogoon fii te joxuñu la dërëmit lii moo la dàqalal mm-hmm. ndax yaakaar naa lii mooy sag bi te ñi fi ñëw ñi ñi fi ne ñëpp say deret lañ say mbokk lañ mbokk na deret nag dafa yaatu côté bu ne mën na faa génne te ñi fi daje ñëpp ñii say taalibey xol lañ ñii say doomi xol lañ ñii say say sët lañ ñii say jarbaat lañ ñii say soxna lañ ñëpp àndandoo nag kenn ku ne génne saw ñaq te boo koy joxee dañ dalay day neex lool te kenn xaarul kenn jël ba fi mu ne nii kenn waxaguma sëñ Cheikh xaalis bi nu nuñ ko def kenn ci ñi amagul ko ma mas a wax ne ma xaalis bi ñu dajale nuñ ko def kenn lijjantiwu ko kon xam ne ñooñu la ñuy def dëgg la ci ñoom kon na nga leen ñaanal ñu gën a man li ñu am fan nekk di sëy muy ay ay soxna ñu am fa ndam ndax buñ fa amee ndam nga am fa ndam ñi amagul timit sans borom may leen man samay kàddu tey du mën a gudd parce que toujours li ma lay wax rek maanaam man fii bu fi toogee mën a du wax ndax li na sama xol lépp ko génnee amaanam mën am carte gi jaxasoo mm-hmm. kon daanaka du ma du jar ma koy génne mm-hmm. waaye na leen wóor ne daal sa Baay Faal toogaat na ci sa kanam mm-hmm. sa taalibe toogaat na ci sa kanam du jóg di ko wax mukk ku ko fekke ku ko fekkewul ku ko xam ku ko xamul maa ngi ci ginnaaw sëñ Xaadim Géey lu mu wax loolu laa wax lu mu waxul waxuma ko wax naa ko guddi wax ko bëccëg wax ko fajar wax ko timis wax ko gée moom laa àndal te moom laay faral te moom lay sotle bu amee ndam ma am ndam bu amee defet ma am defet kon moom laay sotle ndax du moom moom du jëmmu ji dañ ko fee teg ñu koy xoolee sëñ Abdou Khadir Gueye te ba mu ñëwee tamit mu doxi na doxinu sëñ Abdou Khadir Gueye waaye su ma ko xooloon mu xaw a jàdd tuuti barke sëñ Baara Mbàkke ma bàyyi ko ndax man sëñ Abdou Khadir Gueye mii moom a ñor waaw ndax dafa am lu mu fi bàyyi te loolu dañ ko war a rendre compte ëllëg ndax suñ jamono ñun day jeex jamono yeneen ñëw kon ñun suñ jamono dañ ko war a marqué ba buñ taxawee ci sëñ Abdou Khadir Gueye ne ko lii nga ñu bàyyi woon lii lañ ko nii lañ ci def lii lañ ci def lii lañ ci def kon loolu géey yow boo nekkee ci bopp bi te ne ñëw leen ma dem da sëñ Muntaxa waxoon ne ku dem ma dem ku demul ma dem yow noonu ngay doxee ndax bisu seet ñu gis la nga nga jëf jëfi sëñ Muntaxa nga jëf jëfi sëriñ Baara jëf jëfi sëriñ ma jaare gay waaye jëf jëfi sa baay bu ba sëñ Abdou Xaadir gay gor piir waliyu piir sëriñ piir mooy sëñ Abdou Xaadir gay mat sëkk su may wax si moom sax dañuy jàpp ne maanaam li mu doon sama baay a mm. waaye man giñ naa ci sëriñ Baara sëriñ Abdou Xaadir gay sut na waliyu ndax man daf may wan toujours may gis loo xam ne dama naan kii est-ce que sama baay la sax maanaam bis fu mel ni heure bu jubsee daf may déey wax ma loo xam ne maanaam boo gisee toujours ma sama sama derg du ma ko nangoo tekki rek mhm. fu ma ko bëggee yoolamal rek maanaam daf may jaajiwaat mhm. te géy loolu yow dong yaa ma ko wan ndax li ma lay wax toujours rek mhm. li sëñ Abdoulaye waxoon ne bu ma bàyyi woon sëñ Touba tey bu subaa kenn du ma ngàbbal sama satale noonu laa mel ci yow bu ma la gisoon génn sëñ Abdou Gueye lu tar ne tarafatalaay ni boo ma wooye arrêt laa lay dóor kon bu li tax ma topp la du yow sëñ Abdou Khadir Gueye la mm-hmm. ndax da ko koo mate te da nga dox jëm ci mm-hmm. te kenn ku ne yaa ngi koy womat ngir mu mu jaar fi nga jaar mm-hmm. muy sa rakk muy sa jarbaat muy sa sët muy lépp ndax bis bi ni ñu ciy sonne li ñu ciy ñàkk lépp gis nañ xam nañ ko te ñun la waroon mu na ërsa bi ëggagu fa doole ji ëggagu fa kattan gi ëggagu fa waaye bëgg-bëgg baa nga ci te ñëpp am nañ ni ma amee bëgg-bëgg bi noonu la ko Abdou Karim amee noonu la ko sëñ la amee noonu la ko Ibrahima waxaale wu ndax ci jëwriñ yi la mm-hmm. kon ñoom ñëpp pas-pas bi ñu am mooy sëñ bi liggéeyal la donc mm-hmm. li ñuy def lépp ci àll bi wala li ñuy def ci ginnaaw lépp di nuru leneen mm-hmm. yow doo nga la ñuy sagal ndax bu ñu xëyoon kat suba toog ci sa kër gi lànk bañ a def dara yaa leen war a dundal yaa leen war a taalal yaa leen war a reggal li may wax toujours ne fu sëñ Abdou Gueye mas jaar wala lu fa am lu fa dee yow la war kon ku la koy defal ku ne yow lay dimbali loolu ak cant la ndax boo am na am na rakk yoo xam ne bu la ko sa borom joxee ak cant la mooy rakk yu góorgóorlu am jom bëgg lu baax toujours di daw di ca jëm mm-hmm. loolu lañ bëgg te ñoom lépp bu ñu wéetee li ñuy wax mooy lépp sëriñ Xaadim Géey la mm-hmm. ndax moo ñu yombaleel lépp mm-hmm. ndax amoon na bu ko neexoon ne kër gi benn màggale fii am benn waxa fii am muy man maa koy wax te boobaa ñëpp kenn du ko sañ a dindi waaye da nga leen a bàyyi lépp ñu dem xam ne lépp yowet sëñ Abdou Guèye la barki dem bi ma mujjee wax nga ne ma su ma sañoon kër yi dañ koy dagg ba armeel ya yaa ma ko wax ci téléphone su ma sañoon kër yi dañ koy dagg ba armeel ya kër sëñ Abdou Xaar si kër sëñ ma jaar Guèye di yokku rek loolu nga ma wax ci ba tey ay points loo xam ne toujours boo ma ko waxee rek dama koy bàyyi di ko xel waaye man lii ñi ñëpp ñoruñu ma ñi ma ñor mooy daayira bii fi sëñ bi bàyyi woon te féete Touba doon ay jàmbaar dee leen ñaanal ay jàmbaaleen dee leen ñaanal ñu gudd fan ñu wér ñu am barke soxna bu géey mu Baye Mansour géey doon jàmbaar lool ci daa daayira bi sa borom dogal mu xaw a tawat ren ñëwut ñu ngi koy ñaanal nga ñaanal ko mu yëkkati ba delluwaat ci ab liggéey ndax jàmbaar la ci daayira bi mm. at mu jot da def bay def loo xam ne kenn du ko def ci mbooloo ren nag defu ko waaye def na ko sax waaye maanaam man defin ma bokk te bi maanaam teewul rek mhm. ci gàttal mhm. te tawata ko waral ci suba la ma mujj woo xamal ne ma sama xol bi jógut xawlu mhm. waaye nag yàlla moo ko dogal na ngeen ma ñaanaleel te boo àggee nag ma fasaaleen waxal ma ko sëñ Xaadim géey nii la ma ko waxee Cheikh ma jaar Guèye moom kër moom moom bàyyi kër baay baara Touba Bersil yóbbante na ma ci yow nee na ma dafa am ay yitte mi ngi Sénégal waaye dafa am gàllankoor yu ndaw yoo xam ne gàllankoor yi àdduna la mm-hmm. depuis boobu ba léegi ngi fi di ko lijjanti mu të nee na woon bu ma jàkkaarloog yow naa la ko wax mm-hmm. ndax su ma la ko waxee bu duggee sa noppi loolu saafarawu mm-hmm. te yóbbante àq la nii la ma ko waxee woon mënoon naa teg vocal bi ne woon na dugg ci sa nopp yi nee na nga ñaanal ko balaa màggal Tuubaa yitteem joojee faju ba mën a delluwaat ci liggéeyam ba ndax bëggul ku waxoon na ma ko yeneen yóbbante yu baree baree bari yoo xam ne gars yi wax nañ ko ma bëgg koo wax waaye lépp xaj naa du xaj bi sëñ bi ñaanal ñu mm. kese laa lay sant mm. man amul leneen lu ma lay sant mooy nga ñaanal ñu mm. ndax xol ñu jëfee ngi fi yéen a jaa fi lépp ngi fi ñëpp bëgg lu baax ñëpp bëgg a dox jëm ci sëñ tubaa ndax sëñ tubaa moom liggéeyal ko naan wu yokk mar la kooku amul benn problème moom ku ci ku jëfutit yow yaay perte rek alxuraan nee na man xam ne la saalihan fali nafsi lépp lu waay jëf sa bopp toujours dama koy wax ne nit ñu lay soññ ci lu baax dangaa war a daw ñëw ndax ka la képp koo bëgg yéene ko nanga ko digal loolu moo waral suñu kàddu yi loolu moo waral mbooloo mi dajale nañ seenu ñàq nañ ko daan dajale def nañ ko nañ ko daan def jaarale nañ ko ko daan jaarale lépp tege na ci yoon nam daan tege ci yoon dara fan ko ci ñëw nañ ci jàmm agsi nañ ci jàmm ñu ngi ci sa kanam da ci des nag yow yaa ci des ñu gën a naan bal baa ngi say camp bàyyi boo nga mbëkk wala nga talone yaa xam nooy def mu dugg waaye na bal bi dugg wasalaamaaleykum wa rahmatullah allahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi din sabit lisaani nawir janaani safi amaani wasid baraayi waj'al na naafi'an wa raashida mbokki jullit ñu ngi leen di nuyu te di leen bu baax a baax a baax di tuub bu baax tey jéglu bu baax a baax ci kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati suñu kanamu kilifa yi nii ñu ngi koy tuub bu baax a baax a baax a baax xañ na nag daa doon lu mënta moo tax ñu koy def waaye am na ñu ñu ko gën a yeeyoo gën ñu koo man fuuf waaye nag xañ na ñun la ko yàlla nattoo ñuy wax ne señ bi ñi ngi lay nuyu baax te di la ziara bu baaxa baaxa baax baax a di la waxal ne li ñuy jiital suñu kàddu mooy nga ñaanal tu tànk ñaanal leen bu baaxa baaxa baaxa a baax baax ndax gis nañ ci ñoom ak pëseef ak bëgg xañ na nag man gi des na nin ko bëggee ba bëgg koo defee noonu mënagun ko waaye nag nga ñaanal leen ndax buñ ko tàmbale ba léegi it ñu ngi ci gis ak te wax dëgg fa yàlla te loolu it am lu am am am solo la maa ngi dégg léegi ci waxe Cheikh Sidi mohtar Gueye mu ne daayira bu mag bi mooy ta daayira Taysiirul Asiir ci ndégalu Sëriñ Abdul Xaadir Géey la sasoo daayira Xidmatul Xaddim nag ay ndaw ñoo toog xalaat ba jàpp ne war naa man a nekk ñu def ko ban ko defee kilifa yi ànd ci ñun rafetal ko di ñu ci taxaw kon nag jàpp gi baax na lool na gën a am solo waaye am na yitte yoo xam ne bëgg nañ tamit kilifa yi dañ ci jàppale bu baax a baax a baax muy soññ ndaw ñi nga xam ne ñëpp dañ cee war a bokk di si war di teewi ñoom ñëpp ñu mën di ko di ndax loolu ak ndimbal la ci ñun ndax mënuñoo jug kër gu ne ñu dem fa waaye nag loolu ndimbal la ci ñun ñu ne woon nag dañ ko wax fii ba ñëpp man koo xamee noonu ñuy tubaat baax nag tey jégaluwaat baax di xam ne sant na lool te am nañ yaakaar tamit ne wax dëgg fa yàlla ci doxin wi macha allah yal na yàlla yokk jàmm barke si njiwaam. jërëjëf jërëjëf sëñ Cheikh jërëjëf sëñ Moussa kàddu yi rafet na ànd naag Pastef a ah, ginnaaw bu nu boolee suñu jéem ak suñu doxaar ba ñëw li nu ndugg mii ni sa kanam lépp loo xam si ni war naa def ci li nu jëfandikoo ñëw na bu dee lu ni naan ñëw na bu dee leneen ñëw na saako xorom sax indi na lépp a ngi sawet yaakaar naa ne li ci manqué du bari ginnaaw bu nu defee noonu ba noppi nag lii la daayira bi teg ci sa loxo te di ko xeeb lool donga yi nga xam si ñooy sët itam addiyee seen add yaa ni nii bu ñu jëfé ñoom jëf jii ni jëf bu la neexee jox xol ko lepp lu lu ci amul rek amul jënd na lepp ba jënd was was ay dëgg dëgg sëñ bi yëf yi neex na wala ba dëgg dàgg na lool daal mu neex la ko kon nag léegi rahmaani rahim alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki jullit yi bokki talibé yi bokki soxna yi ak tout tanki ñi ngi leen di nuyu di leen ziyara di ñaan jataay bi yàlla bu mu doon sun mujj gi jataay yàlla nanu ko teewaat déen te bu ne yàlla dàq ren yàlla nanu yàlla kartanal te dooleel nu ba yéene gi nga xam am nañ ko ci bis bu màgg bii ñu def ko ba def ci lu kawe xol yi fi daje yaakaar naa ni sedd na te li ko seral mooy da leen di wér ni liggéeyal leen Serigne Touba te ab taalibe bu liggéeyalee Serigne Touba xolam dina sedd waaye xelam war naa dal jataay bi nag xaw naa gudd waaye bis bi moo ni toll kàddu it li ci waroon a jàkk waroon ci jub waroon cee jekk jagal nañ ko jubal nañ ko jekkal nañ ko xanaa ndigal li sëñ jiili am rek moom la ñu am ñu nitam te lu waaye def daaw fekke ko ren war na koo baamu te ñaan ca yàlla mu fekke déwén kon mbooloo mi fi teew ay jullit day bu ñu dajee bu ñu ñaanee yàlla mën na koo nangu kon nañu ñaanal kilifa gii nga xam ni moo waral jotaay bi tey muy sëriñ xaadim Gueye xalifab Serigne Abdou Khadir géey yal na yàlla dolli ko jàmm yal na yàlla dolli ko sutura waaye yàlla yàlla fiq aw fanam ginnaaw bu mu nangulee ñaan googu ñoo ngi koy sant ndax yàlla moo ni ñaan leen ma may leen ngeen sant ma ma dolli leen kon yàlla ñoo ngi lay ñaan sëriñ xaadim géey yàlla na fi yàgg te waaye boobaa nag dañ ci sant ndax nga dolli mbollem njabootuk Cheikh Mouhamadou diar Gueye yal yalla yàlla kartanal leen te may leen jàmm ak xéwal ah, ñoo ngi sant yalla bu baax ci dajje bi sëñ Sidi Muxtaar daayira bi nga xamni ni ko jité te ndigal li soso won ci kilifa bu mag gi nga xamni moy mooy wayjur wa di Abdou Khadir Gueye mom Cheikh Mouhamadou diar Gueye Baye fallu Mbacke ndigal jëfé woko ba mu joggé fi nga waye da nga ko yor di doxal ba sëriñ bi joggé fi nga takkaat ak der melni kuy doora tambali kon yalla yalla guddal sa fan te njabot gi nga xamni ne nga len ñom ñepp ñu nang ko top sa ginaaw yalla yalla womata la boppam da képp ko xamni yalla la womat man nga baña a man nga baña reer man nga baña fakasta kon serigne bi yalla yalla sàmm la ak bay asan bi nga xamni na mak mo xamni la dalon mam Cheikh Ibrahima Fall moko dal mam Cheikh Ibrahima Fall serigne touba da ko yewi mu top bi di joy ba tasee kenn ci mag ña mu ne ko Serigne Touba damaa yëwi mu ne ko loolu jar na jooy xanaa dangaa war a sant mu ni moom a njëkkoon a xëy fuuf te wàccagul kon bu ma wàccee rek damaa notta jagle kon day mel ni Baye Assane mii daa dégg njàngale maam Cheikh Ibrahima Fall moomu ndax ku ne xam na ni am na doom ju mën a taxaw taxawaay bi waaye tax na mu nangu teewul nanguut a bàyyi tey la gën a doonub taalibe tey la gën a doonub jullit tey la gën a nangu ndigal tey la gën a diggu ndigal kon ñoo ngi koy ñaanal yàlla mu gën a yàgg ci kanam njaboot gi naka noonu sëñ daam mi nga xam ni moom dafa mel ni sëñ Abdou Khadir Gueye njaboot gi daf leen a bëggoon a dimbali jaar ko ci sëñ daam Fall mi nga xam ni moom amul naaj na amul guddi na moom guddi ak bëccëg lay male suba ak ngoon ci loolu la nekk ànd koog sëñ jiiri nag te yeesaluñ ko ci sëñ xaadim tàmbalewuñ ko sëñ xaadim ndigal lañ amoon sëñ Abdou Khadir Gueye bi mu fi jógee mënoon nañ ne ah na nañ yaafuus wala nañ yokket kenn mënatu noo yàq ndax sëñ Abdou Khadir Gaye defar nanu wax dëgg yàlla sëñ Abdou Khadir Gaye defar na leen waaye nag fu gën ñëwee baax day dàqu da ngeen a bëgg lu gën moo tax ngeen wéyal yoon bi kon dañuy ñaan loolu yàlla na yàgg sëñ Abdou Aziz Guèye bu ma la joxee nuyoo njabootu sëñ Abdou Khadir Guèye xam naa loolu da ko mën a tasaare ci njaboot gi sëñ Basiru kàddu yi rafet na mënu ci woon a ñàkk ginnaaw sëñ Basiru yëkkati na kàddu sax ñun waruñu woon a yëkkati kàddu waaye nag ndigal li ñuy jëfe xàcc bu dul dal la ab ragal du ko dégg soxna yal na yàlla kàttanal la ba loolu nga xam ne daa nga ko dem ay ati at yàlla gën laa may wér gën laa may ay xéewal ba noo ko bëggee nga man ko ne defee ba defee ko lu kawe sa njor nga dem ba doon magum jëmm mu ñuy weer ak weer sa njaboot di ko def ngay muuñ ak a sant loolu yàlla man na ko yàlla ko def soxna Bintu Gueye jërë ngeen jëf damay wax ni daa mel ni soxna yi sax ñoonu man ñun góor yàlla yi ndax ginnaaw bu ñu génnee seenu ñaq ba noppi dañuy kël faatu la nekk ca keesu seen borom kër yanu ko andi bu ñu paree door jël seen doole ak seenu ñaq dem ca marché ba lijjanti li nga xam ne moo war a jagal bis bi kon soxna yi ñu ngi leen di ñaanal wax dëgg yàlla sedd ngeen xol neex ngeen a bokkoo neex ngeen a àndal neex ngeen a defandoor kon yàlla na yàlla kàttanal leen xol sedd na ci yéen guyu xel dal na ci yéen lool sëñ Xaadim Gueye nag liggéey bi mu daan liggéeyam waajuram sëñ Abdou Xaadim Gueye ca jamono yi mu fi nekkee woon loola rek moo këpp ci kawam moo tax njaboot gépp déggal ko muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw mu ñëpp a ko safoo ñëpp a ko jagoo waaye bu fekkonte ni da doon biccoo mbaaloo ak waajuram sëriñ Abdou Khadir Gueye tey jii bu fi sëriñ bi jógee dana am yaraanga joo xam ni du mën a siggi xool kenn waaye nag ba fi sëriñ bi nekkee da nga naan sax booba la dàqoon a liggéey bi nga xam ni moom la fi gisatu sëriñ bi ndax yam bi nag daa gën a diis waaye booba lépp loo xam ni waroon na ko mënoon na ko doon na ko def ba bàyyam gërëm ko kon mënoo ñàkk lii li wax naan nag jeeg ji dañuy jeeg jéeg jàngi waaye kat yi dañuy màggalantu màggal gaan lii loolu laa bëgg ngeen xam ko à partir d'aujourd'hui suñu xol moom sedd na guy sëñ Basiru junj na ko léegi dañoo woo su préfet yëgal ko bis bi ma coupé moom mu ne ma woo naa commandant bu Pekes assuréel na ko dina ko andil ay élément suba ñu daw taxaw bis bi mu ne ma woo naa ko Croix Rouge bu ngaay dina ñëw ci bis bi képp koo xam ne am nga dagg-dagg wala nga am lakk-lakk wala nga am malaise lu mu mën a doon ñoom ñoo lay taxaw nee na ma saisir naa ICP mooy ki nga xam ne moo yore poste de santé de xawlu dina ñëw disponible ambulance bi dana ñëw taxaw ñaanuñu ko yàlla waaye disponibilité yëpp sous-préfet jël na engagement boobu te bu buñ ca demee bu déwénee boobu lay gën a yaatu incha allah ngeen xam ne nag dañuy door door bis bi daa toll ci door a juddu fi mu ne nii daa duuroon waaye fi mu ne wasin na ñun ñëpp a ko gisandoo di ko ngénte saa yu ñëwee ko anniversaire kon na ngeen xam xol sedd na xel dal na bu ñu waxtaan ak yéen ba seen xol sedd waxtaan ak yéen ba seenum xel dal dañuy delloowaat nag ay ndénkaan yoo xam ni dañ koo tënkoon fii ci ay këyit te way juru sëñ Xaadim Géey daan ko wax te mu man a yee jullit bu ne mën a yee doom ju mën a yee sët bu ne ñi ngi ñaanal soxna Aminata Géey moom Cheikh Mouhamadou Diarra Gueye yàlla yàlla yokk aw fanam te may ko wér xam naa teewul waaye xolam a ngi fi xelam a ngi fi saa su ne mi ngi jokkoo soxna Mbène saa su ne mi ngi jokkoo sëñ Xaadim saa su ne mi ngi jokkoo sëñ Cheikh Sidil Muxtaar te li ñuy jokkoo moom nag mooy di ñaanal njaboot gi rek kaddu bay am di nag moom guddul mooy kaddu cant rek ak ñaanal ñi nga xam ne mën na leen a woowee ay doomam waaye mën na leen a woowee ay jàmbaar mën na leen a woowee ay jëwri waaye moom mooy nit ku baax rek bay am di yàlla fi yàgg tëwér sëñ Moussa yow mi nga xam ne yaa jiite liggéeyu Xidmatul Xaadim yàlla yàlla def leen ay mag te ngeen doon ay mag yu am njëriñ te ngeen doon ay mag yu am jom te yaakar gi ngeen am ba tax ngeen ko pour liggéeyal seen maam yalla bu yaakar jodi tas bis bi nak na ngeen xamni ñeen fukki guddi cheikh mohammed min bara la waye bisub Cheikh mohammed Diarra geey la waye bisub Serigne Abdou Khadir geey la seen bara buñ ci yene kep ñu ni tey la ñeent fukki guddi seen bara koku jar na xey di daw di daw di daw di daw ba ngoon da ngay def comme seigne bass geey at mu jot nak wo gëna a ponkale ca dara ga moom lay dem engagé ko ngeen bisub maamal bi sëñ Abdou Aziz noonu la koy defee sëñ Sidi Muxtaar waxaale woon ko kon da xam ne bis bi ni ma ko waxee woon léegi rek gars yi dañuy màggalantu waaye màggal gaa ngi léegi nag bu ko defee ñu indi leen dénkaan yi nga xam ni bàyyi sëñ Abdou Xaadir Gueye bàyyi sëñ Sidi Muxtaar daana ko dénkaane bu ko defee ñu mën koo def ci suñu poos man koo def ci suñu xel man koo def suñu xol suñu jëm yóbbaale ko ndax ndénkaan yi nga xam ni sëriñ Abdou Xaadir Gueye daana ko dénk ñi mu doon waxtandool daan ko dénk ñi mu doon àndandool képp koo xam ne sukkandiku nga ci doo jàq fii doo jàq fa nga jëm bi nga am jàmm di nga am xéewal di nga am mbooloo mu la déggal te moom moo la ko fi bàyyil te daf ko doon wax ngir ñun ñu jariñu ju te sëriñ Abdou Muudu Baara moom sëriñ Baara gërëm na ko sëriñ Abdou Aziz moom sëriñ Baara gërëm na ko sëriñ Cheikh Sidil Moukhtar gërëm na ko sëriñ Abo gërëm na ko jox ko miskit ca Ndakaaru ko loo a ñaan ñaan ko ci dana nangu kon kooku bu fi bàyyee njaboot bu mel ni ñii rek la ñu mën a mel kon njaboot gi yàlla yàlla sàmm leen man sant nañ leen bu baax a baax man day amna xew ndax mag yi ma ay référence lan sant na ci yalla bu baax baax jaga ñu nek sama ginnaw xeyna na mënu ma leen di jubbanti man ñu sa kanam saa xel dal na ci kon bismillah sëriñ khadim sa bay neena lu la man de dal ci kaw suuf ta sa bakkan nefa fa sant yalla sëriñ khadim sa bay neena na deug bala mat borom kër day mën a ta am jari sëriñ Sidi Muxtaar sa bay neena liggey ba liggey jeex liggey ci seen biiri bok ñoo ci mekk ndax doxi wutiinu xasin aneenu ñeetaan nee na boo liggéey sa biir bopp booy wut dañ lay xas boo amee ñu ñee la moo tax mu ne liggéey ba liggéey jeex liggéey sa biir bopp moo ci gën a metti bàyyi nee na nit bu la joxee dig la bul jëli dig ba ndax gàtt xel la bàyyi nee na boo nee nit da ngay réew waaye di nga xam ne maa la gën a réew nee na ñaar ñu réew ngeen boo nee nit da ngay waaye di nga xam ne maa la gën a na ñaar ñu dof baay nee na Karim lu man di xew toppal ci xaadim baay nee na ku la ni maa man nee ko ci gan wet ndax kenn du la man ci wet yépp baay nee na melentaan da lay màtt ci dooleem nga fayu ci sa doole mu dee loolu ay mbir la baay nee na ab sëriñ mi ngi mel ni nga yor njaq su boo tukkee ni maa naan damaa dem ca saa njaq sa nee na soo yoon du sori wala di nga dee ko mar baay nee na sëriñ xaadim nii sant naa ko gërëm naa ko bàyyi nee na sant naa yàlla bu baax sant naa yàlla bu baax ndax yoru ma jal waaye lu ma mas a soxla rek fajo na bàyyi nee na sëriñ Modou Baara gërëm na ko sëriñ Abdou Aziz Baara gërëm na ko sëriñ Sidi Moutar Mbacke gërëm na ko sëriñ Abo Mbacke gërëm na ko ca Ndakaaru jox ko miskit ni ko loo ci ñaan mu nangu bàyyi nee na waxtu wu ne day ñaan waaye bu weeru Mbacke Kajoor teroo dootul ñaan day dogu te lu mu dogu yàlla fekk ko ci moo nekk ci sëñ Xaadim Géey mii loolu ku ne dégg na ko ci moom Baay nee na Serigne Sidi Moutar matt mii day na nga xam ni digg naa ci lu ne Serigne Sidi Moutar ni ko loolu leen dig rek am na fi loolu moom maa ko fekkee Baay nee na am na ku mas a ñëw ci Serigne Modou jaara ñu ko damaa bëgg kër mu ni ko bind ko mu bind ko mu ni ko bindaat ko mu bindaat ko mu ni ko jàng ko mu jàng ko muy kër kër mu ni ko ku kër da kër kër yi comme noonu la sëñ Sidi Muxtaar def ba këram gi taxaw ci xawlu Baye nee na am na ku mas a ñëw ci sëriñ Modou Diarra ni ko damaa bëgg soxna sëriñ bi ni ko loo yor mooy ko dara mu ni ko jógal ku dara du bëgg dara Baye nee na am na ku mas a ñëw ci sëriñ Modou Diarra ni ko ñaanal ma sëriñ bi ñaan mu sott lu bari jox ko sëriñ bi ni donga bi aal ma daaji ak xalima bi bind jot na de Baye nee na <laughs> nee na gone gu jubul day ragalu mag Baye nee na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 di len balu ak te di len bal ak di ñaan yalla bis bi tambali nan ko ci bismillahir rahmanir rahim yalla nañ ko ci alhamdulillahi rabbil alamin luñu fi ñaan bis yi ko jitu ba ci bis bi ak bis ba ca top yalla yalla nangu ñaan yépp te tasaare ko ci jullit yëpp barke Cheikh Mamadou Lamine amin nee na mu am tuuti lu mu bëgg leeral ci li Abdou Karim Gueye mii doon wax léegi ci Cheikh Mouhamadou Diarra Gueye te mu wàcc nag ci njabootam gépp mu doonoon moom sëñ Mat jaaro ku fees dell ci baatin waaye mu fab baatin ba teg ko fee di wéyal taalibe kese nag nee na sëñ xaadim nee na ñu may ko teewlu mu waxtaan tuuti ci baatinu Cheikh Mouhamadou Diarra Guèye nee na Baye Serigne Jenn dëkkoon Ndéere ñu tudde ko Cheikh Mouhamadou Diarra Guèye nee na das ko daf koo mas a nettali lu reelu ci Cheikh Mouhamadou jaara Guèye ci digganteem ak mag ñi fi nekkoon te neena ba fu ne mag ñoo ne mi ngi giseen ñoom neena da am bis bo xamni cheikh mohamadou jaare gay dafa am ku ñew ci moom ni ko sëñ mat jaara man de dama bëgg soxna diiw waye da am ku ma ca dajel nak sama jamaale mat jaara ni ko kon demal tok ding nga ca jot <laughs> ñu dox tuti soxna si ñu nuyu si ko. soxna si ñu nuyu si ko. mu ñëwaat ci sëñ Mat Jaara. mu mu ne ko jamaale baal doon wax mi ngi avancé de ndax nuyoo si na ko. sëñ Mat Jaara ne ko demal toog di nga ca jot. nee na ñu kon na di dox ba mu yàgg. ñu maye soxna sax. <laughs> yow. mu ñëw wax ko sëñ Mat nee na sëñ Mat Jaara ni ko demal toog diñ tëdd. nee na ñu jàppal soxna si bis comme ni ñu jàppale Ibrahima tey. mu ñëw wax ko sëñ Mat Jaara. sëñ Mat Jaara ni ko yow demal toog diñ ci nee na waa ji jaaxle bi mënutul dox. jëfandikoo ndigal waaye mu nangoo jëfandikoo ndigal rek nag mel ni Dame gëm sëñ Mat Jaara lool yëmalewu ko dara te gëm nag bu baax li mu wax nee na ñu dem ba ca bis ba ñooy jël si séeb ba ñëw daamar ñu ñëw ñu si rek gaara na de

war koo yóbbu mu dem kër ca biir waxtaan wa mel ni wii am fa koo xam ne am fa koo seytaane téye na ko mel na ni seytaane téye na ko ba mu wax aw toj penc xamal leen ni seen laaj bi daa bari ay baadoole ngeen ndax kuy laaj nit ba nako ko ba war a war nga continuer di laaj ñeppet ak mbaa doola la waaw menn mag ne ko booba ceddo gaa ngi fi deretam yëngu mu jóg na xale bii bisub tey bii du ci war wala man ma xaru sama bopp Si ma ketika ci kanam nit ku fi nek sama kanamit dina la ray neena mbir ma doy war neena ñu tok tuti ñu ne ginnaaw xale bi genn nañ ko ba noppi ñu ne ginnaaw xale bi genn nañ ko ci ëpp bi ba noppi te nijaayam ji wala mbokkam nii jaral na ko lii jaral na ko lii xam ne mag ñi bu njëkk danoo kilifteen ba mu jeex kon xale bi moom dootul dem ca kee te dootul duggaat ci néeg bi it kon nañ wut mbokk mun ko boroom xel mu rafet nekk fa na diw de bëggoon na ko te mbokkama nañ ko ko yëpp ñu yëpp ko ke sëñ mët jaara doon wax demal di nga ca jox ci sëñ mët jaara nee na loolu xew ci mbiram mbay gii saa dëkku maam yaa xam bàyyi Serigne Gueye nii ñu tuddee ko sëñ Modou Diarra Gueye nee moo ko ko nettali te te mag nga la woon nee na kon loolu day tegtale ne ñoom kilifa yi na fu ñu nekk nag am na fu ñu nekk waaye donga yi dañuy soññee waaye donga ñoom dañuy soññee ndax ku topp ci yow tànk boo teggi mu teg ko tànk te bëggoo mu dab la te bëggoo mu dab nee na loolu doy na sëkkub soññee nee na loolu nag moo feeñ fii ci kër sëñ Mat Jaara Géey ndax ñi fi nekk ñu mën leen a tudde ay donga ndax ñun ñëppi donga lan ñi fi nekk ñu mën leen di woowe ay takk ndeere sëriñ bi xëy na te buñ sañoon sax bokku ca donga ya ñëpp a yamu doxin ñëpp bëgg lu baax ñepp koy wax te ñepp koy jëf kon lool nak lu mata xam la neena na leneen li ci dess muy kàdduy cant go xamni mi ngi koy tambalé ci soxna Ami Gueye moo fi des ci njabootu Cheikh Mamadou Diarra Gueye. ndax moo fi des wàcc ko ci sëñ Ahmed Lo. jàpp góor yi ci kër na ne moo fi mag ci sët yu góor yi ci kër Nday. di ci teg sëñ Abdou Khadir Gueye. jàpp na ne moo fi mag ci sët yu góor yi ci kër Baay. kon bu nu santee ñooñu. mën nañoo yóbbaale ñi ci des ñëpp sëñ Ahmed Lo ñëwul ah, waaye mel na ni teew na ndax sëñ gàdd teew na te mën na ko fee teewal woo na ko démb waxtaan nañ lu yàgg nee na xolam sedd na nee na xelam it dal na sëriñ bi nee na nun gën a góorgóorluwaat bu baax di boole wax jurafet rafet te jëf jëf ju rafet te diko boole yéene suñu ko defé rek suñu tay man na jag suñu ëllëg it mën naa jag nee na waxoon na ko Cheikh mohammed Diarra Gueye ku serigne bara sagal la waye nit ñi sagub Cheikh mohammed Diarra Gueye bi ci serigne bara cheikh mohammed bi ci serigne bara bu mu ñor nanu taalibe gi ñor rek ndax sag bi dañuy diisal te taalibe gi dañuy woyofal sëriñ bi nee na kon nan góorgóorlu bu baax ci ak taalibe ndax moom rek moo am njariñ fii moo am njëriñ fa mu jëm te ñu ñu yàlla booleel ñuy suñuy kilifa ñëpp taalibe lañ bëgg a doon kon ñun ñëpp mel na ni taalibe lañ sëriñ bi benn rek la muy Cheikh Mamadou Diarra Guèye ak njabootam rek a fi daje tey muy njabootu takk ndeer ak njaboot gu ko yàlla booleel kon ñaari njaboot yooyu ñoo fi daje ñu ñoo tudd kenn bàyyi kenn waaye na ñëpp xam ni bàyyi na ñëpp xel ci bu wér a wér nu may na tuuti nag ci Cheikh Sidi Muxtaar Guèye ndax wax deug yalla jambar la mom ñu andal liggey bi mom jambar la waaye ñi andal lepp jambar lañ ndax Cheikh Sidi Moukhtar geey mi ngi def lim man mi ngi wax lim man ak képp mu man doon ci njabot gi way ba Cheikh Sidi Moukhtar Gueye toll moo mënta lim waaye ñëpp fa lañ toll ku ci nekk yaa ngay jëf na nga mane loolu itam nee na sori na lool ci moom am na solo lool it nu santaat yàlla ci yokkute gi am ci bis bi muy kàddu sëñ Basiiru Géey yii ndax wax dëgg yàlla namoon nañ kàddu gi nag sëñ bi bëggoon nañ ko lool it nag kon nag ndokk bi nu ko yàlla defalee ci bis bii defal na ko ci waxtu wii yàlla na yàgg yàlla na sax yàlla na barkeel te ànd ak jàmm ñu góorgóorlu bu baax te waajal nag bis bu nekk suñu kanam nga xam ne bii naa fi la waaye farata jaa ngi ñëw muy màggalu Mbàkke Kajoor ndax moo ñu boole ci Cheikh Mamadou moo ñu boole ci sëñ Baara moo ñu boole ci Serigne Touba. kon lola bis la bo xamni nañ ko waajal bu baax ci fulle ak fit ak jom luñu man nañ ko ci def luñu manu nañ ko ci jéem Cheikh Sidi Muxtaar mbake neena ko xaadim mu ne ko mbake nit ku baax te dir julit te des gor du defé namu tollu du defé namu tollu du defe fa mu toll day defé namu tollu ndénkaan la na loolu ndénkaan la loo xam ne ay wolof la loo xam ne ku ne mën na cee gis boppam loo xam ne ku ne mën na cee gis boppam kon loolu lu am solo la bu loolu jàllee sëñ Moussa Diop ak soxna Mbène Fall daayira bi ak daayira bi ñu àndal di daayira tuut tànk yi dañoo am aw sas te war koo bay ndax Serigne Touba téere yi mu bind li ëpp ay ndaw la ko jagleel. ay ndaw la ko jagleel. kon bu yàlla dogalee. kon bu yàlla dogalee. ngeen di ay ndaw. doon ay tuut tànk ci kër gi. yor liggéey bu mel noonu. di ko doxal. ba sëñ Daamfaal mi seen jëwri. wax ne. kenn mënu leen ci. yéene leen sax foofa. loolu wax dëgg yàlla. ak cant la. nee na jot na. daayira bu ndaw bi dajale lim bi nga xam ne daayira bu ndaw bi moom lañ dajale ak lim bi daayira bu mag bi dajale ak lim dajale mel ni kon daayira bu mag bi mel ni kon daayira bu mag bi bu ñu àndee ak daayira bu ndaw bi bu ñu àndee ak daayira bu ndaw bi ñaari daayira lay nuru ñaari daayira lay nuru waaye benn la ndaw nag waaye ndaw nag dafa mënta ñàkk ànd ak mag dafa mënta ñàkk ànd ak mag magit mënta ñàkk ànd ak ndaw magit mënta ñàkk ànd ak ndaw mag yaa dox doxinu mag kon mag gaa dox doxinu mag ndaw ñaa ngi dox dox yi nu ndaw nee na kon yàlla yàlla nangu jëf yëpp yàlla na ko yàlla ful yàlla nañ ko fekkewaat ak jàmm ba te luñ ci ñaan yàlla nangu ko suñu borom jéggal ñu bàkkaar yi jéggal ñu rëcc rëcc yi fajal ñu ràgg ràggi xol yi ci barkeb Cheikh Mouhamadou Diarra Gueye Cheikh Moustapha Mbacke nee na ko démb ku ñew ci bis ba ak fofu man di nek lay sa farata moy bo joxe waxtu juroom ba nopi so xëyee na nga dem ci barabu Cheikh Mouhamadou jaare Gueye ba jot li fay ñaan ñaan fa sa yitte kon bis bi du bis bo xamni ni ak naan rek ko tax a jóg mënta ñàkk nag moom farata ji mooy nanu dem ca barab ba gan goo am wala koo xam te yéene ko yiw na dem ci barabu Cheikh Mamadou Diarra Gueye ñaan faa yitteem bu ko defee lépp dana faju nee na loolu moo doonoon kàddu yi nga xam ni mënu ko cee ñàkk a wax doonte gudd na ndax wax ji ñu njëkk a wax ñu njëkk a wax bu ñu waxee ba noppi daa doy matale na sëpp li ci des kàddu cant la kon jërë ngeen jëf yàlla nañ ko téye déwén yu bari luñ ci yëngu yàlla na ko yàlla nangu ci barkeb Serigne Touba barke Cheikh Mamadou Lamine barke Cheikh Mamadou Diarra Gueye di sant bu baax itam nga xam ne man ñi nga xam ni ñoom la yàlla boole woon ak ñoom la yàlla boole woon ak Cheikh Mouhamadou Diarra Gueye Cheikh Mouhamadou Diarra Gueye maam Maxa Kuli Dieng muy maam Maxa Kuli Dieng mag ñi mu nekkaloon ci dëkk bi ak mag ñi mu nekkaloon ñëpp ci dëkk bi wax dëgg yàlla xataluñ woon sëñ Mat Diarra xataluñ woon sëñ Mat Diarra xataluñ sëñ Abdou Khadir Gueye xataluñ sëñ Abdou Khadir Gueye nee na kon loolu nañ leen ko jotti leen njaboot googu xam ne suñu xel dal na ci ñoom suñu xolit sedd na ci ñoom taxawaay rafet na taxawaay a na matale a Touba matale na Touba matale na Mbàkke Kajoor matale na xawlu gii ci liñ mën a wax ak ci liñ mënta wax njabootu maam maxa googu ak mag ñi nekkaloon ci biir dëkk bi yàlla leen yàlla dolli kàttan dolli leen ak wér dolli leen sutura ba lu baax la seen maam sàkku woon ba tax moo indi fi Cheikh Mouhamadou Diarra Gueye ñu di ñu di ko wéyal ñoom ba yegg si fii loola yàlla na leen fekk ñoom man ñooñu fañ tëdd loola yàlla na leen fekk ñoom man ñooñu fañ tëdd ndimbalul addina itam ndimbalul addina itam ñu fi desandi ci àdduna ñoom ñu fi desandi ci àdduna yàlla na leen fi ndimbal li fekk barke Cheikh Mouhamadou Lamine barke Cheikh Mouhamadou Diarra Gueye jërë ngeen jëf ba déwén ak jàmm déwénati déwénati ay déwéni déwén tubaarkàlla